fii daa mas metti lool dafa mas a metti ku ñëw mboolem politicien boo doon loolu wax nu gëm ko rek nga wax sa wax ju neex maanaam sa soxna lu mën a togg mën a togg mën a togg cin li bu dee bax di xeeñ lu neex te di su ko yëkk mukk kañ nga lay jariñ wax leen mois de février baykat boo ne année sa alleeru baxaw da koy wëri kon alleer lañu politiciens yi jàppe bu ñu nawet rek lañuy soxla maanaam campagne électorale la ñuy soxla parce que dañuy fontoo nag dañuy fontoo parce que fii dafa mel ni boo jógee Touba wala Louga wala Darou Moussa jëm fi boo jàddee jëm si taw tawfeex boo ñëwee fii tali bi yam dafay mel ni fi la xéewal yam te ay doomu aadama dëkk fekk sénégalais courant bii ngeen di gis ak lamp état bi defu ko fi de Serigne Sidi Moukhtar s'est financé cent trente millions c'est Tawfekh Mbaraakan Touba Petañ Ndaam Lo kër Sëñ Matar Sidi Lo Daara ja ak to bul kam kër Bassirou Thiam chef de village baa ngi nii El Hadj Moustapha Diaw forage bi la fi def à condition fekk na maruñu ndax am nañ ndox fekk na dëkk bi xaaj bi yépp taxu nan dëkk bi ci dëkk yi gën a rëy ci la bokkoon ñàkkum ndox ak bay muy gànt moo leen fi jëlee man maay ki fi mujj man bi ma sëñ si Muxtaar wooloo fii ne ma bul tuxu doogal fi mel ne yaa ngi bi billaahi ba fi may waxee yow kenn tuxu fi waat kenn moo fi tuxuwaat ci ay raison la ba mu tàggoo sëñ bi bàyyiwu ko ba ko Alaaji Moustapha mi tàggool wax ko raison yo mu bàyyi ko mu dem booba ba léegi sañtaan la ñoom waaye kenn tuxu fi 1980 14 boobu fii amul dara doo fi gis néegu ñax baax sax wut wala seng nu toog feeg moom di muñ moom sëñ Moustapha Bara état bu ñëw ñu ànd moom di dundee yaakaar rek ni xale bu xiif nàmp seen yaayam mu ñëw ween wi jox dafa yaakaar ne bu ñëwee rek mu nàmp te mën naa am dara ci meew nekku ca ñu dund nax rek ma jàpp ne nag jot na sëkk tey ñu taxaw nag xam na ci senegal la ñu bokk fii dafa booy nu bëgg mu set wecc nag dañ ko bëgg bay ñeenti mbay defaraat ko ra ko toppaat ko ba mu set wecc bokk senegal foo ñëwee ñu mën ko fa présenté parce que danoo am ay dëkkandoo ñu ay Haalpulaar amu fi fenn foo pilu lampe di tàkk courant bi ci ñun la rafetul ba sëñ Sidi Muxtaar góorgóorlu ba indi ko fii boo defee fukki poto mu dem déngu lañ nga dolli ca ñaari poto mu dem lugg koñ nga dolli ñetti poto mu dem dangu pël waay waay soxlawuñ poste soxlawuñ desanteer ay poto képp ñu bokk ci Sénégal ñu bàyyi leen ci lëndëm ni mu mettee te bu courant coupé kenn ku ci nekk di bëgg a dee ba ci ñoom ministre yi ba ci président de la république bu courant coupé rek moo am problème imagine toi monsieur le président da ngay am waaw da ngay am problème mais xalaatal ñu nekk ci lëndëm passé nañ moment boobu. fii dafa mel ni fi la Sénégal yem petañ pale ngi nii jege lool Touba petañ poto yu néew ñu amug leer songaan poto yu néew ñu jëlee ko ci petañ pale yóbbu si ñoom walla ñu jëlee ko Touba mu ñëw diggante yu gàtt yu yu yomb mais yaakaar naa boo ku demoon assemblée nationale bu Sénégal boo fu tuddee suñu turi dëkk yi dañ naan la est-ce que foofu nekkul Guinée wala Mali parce que ko mais dafa jot nag ñu xam nun ñooy ñan dégg nga politicien bu ñëw fii dégg nu téeméer da nga nuy jox 375 ñu topp la 125 parce que boo gañee fàtte nu boo perte lijjanti ji la nga perte leblee tunde ñun nag comme ni ko Xaadim waxe rek ñun moom gisuñu ci benn président gisuñu ci suñu bopp amul benn président boo xamante ne bii gis nañ ci suñu bopp fii li fi nekk yàlla Cheikh Sidi Moukhtar moo ko fi def kon ñi ngi sant Cheikh Sidi Moukhtar di ñaan yàlla suñ borom yokk ay leeram kon nan ñu dimbali defal ñu ñu jàng jàng ay tailleur a ngi fii nan ñu dimbali ñu defal ñu ay formation ñu jàng liggéey saabu wala eau wala formation yi fi nekk daal bari na su ñu ci mënee dimbali te yàlla tax nan ñu ci dimbali mais sonn nañ nan ñu jàppale ndax jigéeni àll bi kenn boolewu leen ci dara dara boole ñu ni ci jigéeni àll bi te dañoo am so loo xamante ni bii ñoo ko moomal suñ bopp nag nan ñu jox suñ cër nan ñu jàppale ci poste de santé poste de santé nan ñu ci jàppale wax dëgg yàlla yittewoo nañ ko trop bala nga fee jóge di dem di faju ji dangaa dem ba daaru mu si jigéen ñi dañ fiy jóge di mucc di dugal ci ay sareet ak fu ne la ñuy dugal ñu yóbbu daaru musi nan ñu jàppale te yàlla tax ndax ñun jigéen ñi sonn nañ trop sonn nañ ba ca kanam yàlla nan ñu jàppale ci procédure yi waaw ndax ñun tamit ci jigéen ñi nga xamante ni bi dañ leen a war a jàppale ci lañ bokk ndax nekkul ne dañoo nekk ci àll bi rek duñ bokk ci lenn suñ jógee fii dem daaru musi luñ fay doxi dañuy dox ba suñ tànk yi futtu te duñ fa jëlee dara waaw nax yi dafay war a jeex bés bu set bés bu set danaa la defal danaa la defal defalunul dara élleer la ñu def bu nawet jotee nga daggi béy ba bu bu nawet jeexee nga de wéeru fële loolu lañ ñu def élleer lañ ñu def nii nga gis fii fii xam naa yéen xamu leen gox bi fii pël gu fi am am courant amul pël yi moom bokkuñ fii moom pël bokkut pël bokkut de pël bokkut te gis nga lii ngay gis nii bu ñu demoon ba élection yi walaay dana leer dana leer Ousseynou yaw a ah, jox jox nañ la loxo nan tàkkoo ànd liggéey pël yeeg naar yeeg olof yëpp jox nañ la loxo nan ànd liggéey gox bi